Tak pernah de tapi mbooloo. waaw mi ngi nii. mais booy sa ana étoile bi. non étoile bi léegi <laughs> indi naa ko. mais teg nga Jangan étoile bi. jox naa ko booy yi. jox naa ah waaw. ñaari champion yo yo. ñoo ngi foofu waaw. ban yaakaar nga am ci ñoom. non ay champion lañ. ndax def. waaw waaw bëgg def. te am nañ mbooloo tam. aussi ah, ah. te loolu moo am importance ci mbër. Ah. waaw lamb ji waaw lamb ji mi ngi waat mi ngi demaat place am. mi ngi demaat xaw naa daanu bi fi jóge waaye léegi moom alhamdulilah. Ah, ah. mi ngi demaat place am ndax parce que yi bari nañ. waaw te tam ñu ngi boole carte kuréel yi. dëgg la te loolu day am am solo ci lamb. da ngaa tekki ngémbale. waaw man teg naa sama ak yow. dootoo bëriwaat. non dootuma bëriwaat. même buñ la joxoon bàyyi ma ñoon bëggoo. kan buñ la joxoon bàyyi ma ñoon bëggoo. Ah, man damay moromu ñooñ ba naan ma bàyyi ma ñoon yow doo ma wax ñi ci kaw. su ma doon bëri dara damay lim rek damay lim. non non soo soo demee suñu la joxoon bàyyi ma ñoon. te man bi ma fi jëlee du ma moromu bàyyi ma ñoon naa am bàyyi ma jox la. non non ñëpp soxla woo kenn man soxla woo kenn mais kontaan si yow. waaw maa la raw. naka naka dëkk bu fële. Ah, ñoo ngi sant bu baax. yéen a ngi sant bu baax. waaw ñoo ngi lay sant di la gërëm. waaw ah. yow tam bay nga sawaar ci. dëgg la lamb ji. waaw parce que su naan. Ah. su naan njëkk a wax ci lamb. waaw yow la ñuy wax. suñuy temps suñu lamb. dëgg la nga liggéey ci liggéey bi am solo ba ñun ñëpp tey laa lay wax nii. suñu àdduna xamee daanaka grâce à yéen. le phénomène de Pikine mbooloo. Ah, Iba Kane de Pikine mbooloo. ndeysaan mais ah. mais du la bàyyi combat Modou Lo Boy Niang boo ma ko doon jàngatal. mosoo ak ñoom nag boo ma doon jàngatal waaw Boy maa ko yàq. waaw. waaw xam ko baax. mu gëm li muy def bëgg li muy bokk équipe nationale. waaw ma xam ko bu baax moom tam. waaw waaw waaye nag. Ibou Diouf nee naa ko woon tey. waaw ah. du neex. du neex. waaw tey ñëw naa du neex. waaye suba du neex. neex. waaw combat bu arbitre bi soufflé génn seen diggante. su arbitre bi soufflé génn suñu diggante. waaw seen diggante. waaw. Boy Niang dafa war a def li mu war a de mooy lan lan la war a def mooy dox ci kawam jàpp ko du ma ko dàq. mais Boy Niang du bëree noonu moo ma na non dana ko bëree nag lépp Boy Niang mën na lépp. waaye kenn ku ne li ngay bëree. waaw xam ne moos boo Niang ñi ko jàngal bëree. waaw ñun lu ñu neex la ñuy bëree. dëgg la waaw ñun ñu neex la ñuy bëree. te tam ay cuuna yorul bàyyi Boy Niang. dëgg la kon bàyyi li mu doon def ci lamb ji moo tax ma da nga a dafa war a dem jëli Modou Lo dama ne la ah lamb ji du ma ne da ngay ñëw rek jëli waaw waaye ñu jëli te boo ñaa amul lu muy wut ragal amul lu muy ragal ci Lo amul lu muy ragal li ñuy wax lépp laa la wax nii dañ koy xoxatal ah. rek ah. di wàññi kenn waaye boo ñaa gaynde la waaw waaw xam naa ne ah. gaynde la bagaar bi kan bagaar bi mu na foo xam ne nii Boy Niang moo fa man fuuf. waaw Modou Lo. mooy fan. waaw. Ah. xam naa ne li ma koy moytuloo rek. waaw ah. Modou Lo su defee ay jeu de jeu. Ah. waaye ñaa Niang sax dem nañ ba xam na ko. ay jeu de jeu yooyu muy def di xuuxalaata pour nga def en retrait tuuti ak mu ñëw. boo Boy Niang du ko ko may na ko. mën na ko te loolu rek mooy por por mu loo. waaw ne la xaaxaa nga nga def retrait mu joxoo si ñëw. waaw waaw. Uh-huh. te Boy Niang xam na loolu. bu ñu bëree bëre suuf la. suñu bëree bëre suuf. waaw Boy Niang du ko may bëre suuf yaakaar naa. waaw uh-huh. du ko may bëre suuf. du ko may bëre suuf xam naa ne tam ah. su ko mayee bëre suuf nag moo naa ne. du may Modou Lo bëre suuf. Uh-huh. suñu jëm ca suuf tam gis bëre. foofu ngay gis Modou Lo wet lay joxe te su joxe Boy Niang wet waaw ah, da nga gis loolu metti Boy bu Lo Boy Niang su jëlee Lo ah, ah. Boy Niang soxlawul tànk Modou Lo soxlawoo soxlawuñ ko bu la ko suñ ko ko ñun Lo li li Boy Niang war def fóon ko rek jàll ndax parce du foofu du sit ba fóon ko fóon ko rek ndax du yow luñ koy Boy du dem di lali tànk Lo waaw bëre bi nag bëre bi nag danañ laal ci suuf waaye ba muy jeexee ca kaw lañ koy jàppee. waaw loolu mooy bëre bi. Ah, ah. waaw mais yow demoon nga ba war a war bëre ak ak ak Modou Lo de lan moo tax sa combat ak Modou Lo amul. waaw <laughs> bëre woon ak Balla Gaye. non man damaa bëre rek bàyyi bëre wax dëgg yàlla ñëpp. ndax kenn sa jamono laa wax yow Modou Lo lan moo tax seen combat amul. non non bokkuñu catégorie. waaw ñun dañoo ñëw ah. waaw. Euh, Modou Lo ñoom ci pour deuxième euh, deuxième deuxième euh, classe bi lañ génne waaw daal di dem nag waaw ah, ah. ñun nag booba ñu ngi baissé forme ah, nekkaat ci yeneen dynamique ñoom comme boy yi rek ñëpp mbooloo dana ñëw comme ñoom boy yi gis nga ko tey ñu ngi leen di boole xale yi li leen ko may mooy kan ay supporter Modou Lo la jaar ba dem bokk ñun cataplu yi cest Balla Gaye génn. waaw Modou Lo génn. ñu daan te mag ñi. ñu boole leen ñu daal di dem. ñu daal di dem Ama Baldé bu muy nag si Modou Lo lan nga si jàngat dafa def benn erreur. waaw dafa dem dafa def erreur. Ah, ah. te loolu daal mbër. Ah, waaw waaw dafa def erreur te loolu dana dal ma te mënuloo ku koy bàyyi ah ay jëfër jëfëram ah. raam téewu koo bëre uh-huh. waaw loolu rek moo perte ah, Ama Baldé ndax parce que bi mu ko ah. songee def kaan api da ko waroon a naj ba pare ba mënuloo di noyyi di jóg mu ambale ko nag man koo mboot waaye da ko da koo naj ba pare yëkkati waale mboot loolu te jàpp fenn te mënuloo ku ko ku ko def mu daan la ku ko def mu daan la parce que loolu day ay béréb waaw loolu mënuloo bu ko defee kon boo ñaa rëpp boobu rëpp boobu waaw te boobu su ko defee waaye bu ko booy ñaa. waaw booy ñaa jàng na bëri. booy ñaa. booy ñaa jàng na bëri su ropee. waaw ah. booy ñaa moom ko fa naj moom. ba pare. Ah. nit su su ropee ba da nga koy ah. naj ba pare. ko ba muy jóg. nga mën a def ngay def. dëgg la waaw ndax parce que def na ko ci Balla Gaye ba mu ne carax tànk ba. daf koo jox. bàyyi ko ko cam langal ko ba mu ba mu a centré bëgg a teg mu pandu ko génn ci sank da nga ne soxla woo tànk booy ñaa tànk Modou Lo Modou Lo bu jëlee tànk booy ñaa nag Modou Lo du jël bo tànk booy ñaa booy ñaa Modou Lo du jël tànk booy ñaa da naan Modou Lo ca ah. ndig booy ñaa la bëgg a def waaye Modou Lo du jël du jël tànk booy ñaa boobu la bëgg waaw Modou Lo li def lépp laa lay wax nii ah. su ne laal moom te tànk booy ñaa ah. da koy centré da koy centré da koy centré te foofa nag bokkuma fa booy ñaa waaw loolu mën naa nekk ci biir combat bi bañ ndax ñoom ñaar ñëpp loolu la ñam kenn bëreewul ci suuf su ca dóor mu daan amul digg la su ca dóor mu daan amul loolu dong la ñuy bëree bëri ba ca kaw lay jigéen wàcc ci suuf dóor mu daan foo gisee ñoom ñaar ñëpp te ci booy ñaar sax laa am na noo xam ne ni su loo defee booy ñaar dëggal boppam kenn ku ne ku jël sa énergie morom da nga daal booy ñaar mu daanu waaw Modou Lo ni mu mën a amee énergie dóor booy ñaar mu daanu booy ñaar tam am na nu muy taxawee su ko ah. defee booy euh, Modou Lo mu daanu sànq da nga wax si biir wax ne Modou Lo ndig booy ñaar la soxla. waaw. waaw mais yow bëri nga combat loolu mooy bëre bi yi dañuy wax rek. dañuy wax rek Modou Lo Modou Lo day ñëw rek. waaw waaye day xaaj booy ñaar ndax foofu dong la ko mën a daane. Ah. te booy ñaar da ko ko may. da ko may da ko ko may. waaw ah, la mën a def ba Modou Lo daan ko. loolu rek. loolu rek waaw. waaw ah. Modou gëdd ko gëddaat ko. ah. waaw ah, waaye xanaa nag jàng na jàng na sax ay laa lay wax nii. ah, ah retiré ba pare tegal ah, arrêt gauche. arrêt gauche rek. arrêt gauche su ne tag mu tegal ko arrêt gauche. waaw su mu dem ca loolu mooy bëre war a bëri suba. boo dundee far far bi kan ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ. waaye Modou Lo day daanaan waaye boo ñaa fekk si leen ko. xam nga euh, ay ay. ay jéego ci làmb ah. bëri ñi nga xam ne ñoo gënoon ës ah. mu am cay ndam ah. mu loolu dama naa ko félicitation waaye nag xale màgg na waaw xale màgg na mais ñu bëri nee nañ combat mun naa yàgg mun naa jeexe avertissement mun naa nul non non non d'accord nga si non non non d'accord aussi combat bu tul nii bu jeexe avertissement bëri dina am ndax mu loolu day bëri te euh, tey tey fu mu nekk laa wax ne Euh, boo Niang dana ko fekk. dana moo yoon. Ah, ah. moo yoon moom mi bëgg. Ah, dafa war a at njëkk a andi safara suufa sap loolu mooy yoon. Boy Niang dafa war a andi. bañ a kaa su ñu pire laa lay wax nii. dafa war a andi safara saf sap. bala ko ko ndax mën loo ko koy déglu. ah mu daan la ndax parce que bëree. dafa xam bëree. merci mon frère. jërëjëf. le phénomène de Pikine mbooloo. jërëjëf Iba Kane jërëjëf Iba Kane yëpp laa xam waaw. oh l' euh, ah, waaw jaaraama moom. waaw parce que dama ah, ah. mu mënuloo waaw mbër yëpp laa la wax daan. waaw ndax parce que dafa bëgg nag ay sportif lañ Iba Kane maa moom ah, ay gaañal lañu waaye nee naa ko tay du neex suba du neex tey moom nañu bàyyee rek mais noo gisee carrière Balla Gaye day liggéeyaat rek day liggéeyaat mbër yàgg naa jaar ci ay tolof tolof waaye nag gannaaw ba léegi tolof tolof bi gën a bañ mooy que ne say supporter yëpp yëpp bi la say ay supporter su fekkee da ngay bàyyi lam waaye tey Balla Gaye àggagul foofu. te tam su liggéeyaatee. ñii ah. kanam mën na cee ay jéego yu baax. dëgg la waaye nag loolu li koy maye mooy que ne ak liggéey. Ah. waaw ak parantam bàyyiwaat sa bopp. ñu ngi wax Siteu Balla Gaye ànd nga si. ah Siteu Balla Gaye ñu koy coow. ah lu tax duñ ci ànd. d' accord nga combat boobu lu tax duñ ci ànd. si kan la gën a dangereux combat boobu bu taxawee. kan bu taxawee gën a dangereux. non. c'est-à-dire kii day maye chance rek. kii def ay ay jéego. waaw si te jé def na ay jéego. te tam làmb. li amateur yi bëgg la la la la man bu njëkk ba muy bëree. waaw kii mooy sama kaddu. li amateur yi bëgg. la mbër bi a bëgg. Ah, ah. amateur yi bëgg. Ah. mu am poosam. ci la ñu bëggee woon Balla Gaye 2 Boy Seye 2. <laughs> mais combat boobu. mais boo koy boo koy fàttali waaw xam nga combat boobu. waaw damaa daan Balla di dem Louga. waaw Gaston woo ma. Ah, ah. ci fee saison. ñu ne ma bu ko jël. ah 25 booba yëkk ni la Tapha Gueye. man de dama koy jël. da koy jël Balla Gaye su ma ko jëlee danaa dem ma ko jëlul man danaa dem. wallaahi liñ ma fay mosu ñu ma ko fay kon nag dinaa ko bëre. dëgg la daal te ah. ay daal. ah baaxoon na. waaw ñoo ngi félicité ñoo bu son. waaw boobu ak suñu rak Makar. nettali ma combat boobu. waaw combat yokk Balla Gaye. ah nettali ma ko. non euh, Balla Gaye nag combat bi cat moo ci dugg. cat booba. waaw ba dernier réglage yi. waaw ñu ñu euh, dernier combat bi ñu war a sëgg. may dem di dugg ci biir géew bi yàlla jiy taw. taw waaw ba may daw di dugg ci géew bi yëkkati itam di dëgganteeg man di dugg ci bi ñu ne ma bul dugg mu nag lu wër bi ma génnee day échauffement di génnaat di daw ci sama la tarxiisee daanu ci la tarxiisee jël bu mag léegi ma am problème mu ndëgg. ñoo ci amee problème mu ndëgg tam gars yi dama ñu a leen damay bëre waaye bi ma daanoo keroog laa ni mu gisatuma ay biddiw laa gis waaye sama yaram tàng rek ma ne bala ngay ma koy daan waaw ndax soo daanoo sa bopp dal ah da ngay niir sama ndigal itam euh, ma am problème. waaw waaye tàngaay wi gars yi ne ma gaañoo man leen gaañoo woon damay def ko de loolu tam Balla Gaye bi ma ko centré. waaw ba butuloo ba ba koy wër ndoomam mu génneewaat ma. waaw daal di yaa ngi lay la. dama bloqué ba pare. daa di mbot. daa di mbot tam la ngay xamal tam booba tam dafa nekk ay champion. ñun li ñuy contact dafa bari. waaw ndax parce ba 4 heures. léegi nag mbëri dañu contactul. ko waroon daf la ko doon fekk waaw foofu la ñuy toll. daf la doon fekk foofu. waaw yow. ngay ngay contact. di contact. di contact. ba ñu tàllam bi. waaw loolu am dix-huit heures dix-neuf heures ñu jógaat léeg-léeg sax ñu demaat reer ba pare contagaat demaat géej di contact ñun comme ñëw nu ay buddi wenn contact rek lañ xam ndeysaan waaw loola jërëjëf jërëjëf Iba billaay kontaan naa maa la gën a kontaan dama kontaan maa la gën a kontaan yàlla xam na ne bi ma gisee xam ne dama dama daw lungu la parce que dama kontaan jërëjëf yow dama la gën a kontaan champion nga ndaanaan nga bërekat nga. jàmbaar nga. jërëjëf sëñ Babacar de jërëjëf na a ngi nii. jërëjëf kontaan na Boy Sey 2. jërëjëf le phénomène de Mbooro yal na yàlla guddal sa fan. amiin amiin jërëjëf moom frère merci.